lu ëpp juróomi at ñuy dund ñàkkum ndox askanu mediana 3 jàpp mediana 4 nekk ci diwaanu Touba war a dalal seen xel ginnaaw ba kuréel gii di ànd taxaw mediana tàmbalee def ay tiwo ngir safara seeni jafe-jafe Abdou Ahad Ka nekk maire bu Touba ñëwoon na jàppale bi lépp kuréel te di rafetlu seen liggéey. ñi ngi ci xaar maire bi waaye ñu jóg jàppale ko ci di ko gàttandu loolu la wax mm. kon maire bi mi ngi ci. mi ngi ci addition d'eau mi ngi préparé addition bu mag am na cinq cent et quelques millions yoo xam ne nii euh, addition d'eau lay doon ci année deux mille vingt bi lañ ko waroon def mais mbas mi moo tax moom peut-être en retard bay ci catu deux mille vingt deux mille vingt et un loolu yëpp ñu ngi ciy sóor Madiana te fas yéene ko ànd ak ñoom bu ñu demee fu ñu yem bu commune bi ñëwee tàmbalee fii maanaam ak hydraulique maanaam complété li ci des waaye ñoom li ñuy wax ndimbal na ci fekk loxol borom mm-hmm. day leen cee fekk mm-hmm. lool nag ñu ngi ko royee ci seen kilifa tàmbali mm-hmm. ci suñu soñ bu jaar ci sëriñ Cheikh soñ bu mi nga xam ne yàlla na fi yàggiti wér ba wàcc ci taalib yi nga xam ne ay royukaay lañ kon daal ñu ngi leen sarti di leen gërëm